barke maam Sara Fall Lamp waaw waaw tàmbale ci maam rek di yem ci maam rek nañuy dund maam suñ bàmba ñuy tàmbale ci xasida di yem ci xasida te koy liggéeyal te gën a dee moom def ko sunu yàlla point bañ a lijjanti nanu dee maam taalibey rek teggin nangu barke maam Sara Fall maa ngi ci jóg ku loxum maam Lamp àjjana Fall bàyyi Fall te ko jóg kii sarsara lay ñoqali bët ku lu dina li see ci leer nan fes mes men dañ nan muy di leen cuujoo cuuraayoo kul xum nag naan tocc mi ko rek sangoo sangoo xëppoo sëlamoo waaw waaw naan leen julee jàppoo rek naafi la woo rek xëddoo rek waaw daal di nag daal di ñii di mbëstal ñii di bës ñii di sarsarale ñii di joxe ndogo yi lépp rek man nag ci yëpp maa ngi ci amu benn